asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan maa ngi leen di nuyu leen sant di am mbégte bu rëy jàkkaarloowaat ak yéen ci suñu deuxième numéro émission toog teg muy émission boo xam ne dañ ci waxtaanee xew-xewi jamono ak suñuy invité suñu invité tey mooy monsieur Pierre Sagna monsieur Sagna maa ngi lay nuyu di la wax dalal ak jàmm ci suñu numéro Tok Tek. merci beaucoup Amina di la fay di nuyu mbooloom auditeur Rio Plus ak ñëpp ñi fi liggéey tamit. jërëjëf monsieur Sagna dama lay bàyyi nga présenté wu. waaw maa ngi tudd Pierre Martin Sagna di professeur d'histoire et de géographie euh, fii ci seen Matar Seck nekk secretaire général euh, syndicat bi ñuy wax SAEMS secretaire général départemental euh, bu fii nii Rufisque commune en même temps nekk secrétaire régional bu Rufisque ba pare bokk ci bureau exécutif national bu syndicat bi muy le SAEMS. jërëjëf monsieur Sagna kon ñu xuus suñu temu tay bi muy wàllum jàngale bi ak jàng bi. Euh, lan mooy rôle lu syndicat je pense que balaa ñuy wax euh, rôle syndicat c' est important ñu xaw a euh, dellusiwaat ci kaw xam fan la syndicat yi sokkee ko waaw bu ñu xoolee bu baax syndicat yi ñu ngi juddu ci année 1850 ca Angleterre ñu ko doon woowee les trade unions d' abord après mu ñëw France ñu tuddee leen d' abord au départ les caisses de caisse solidaire caisse solidaire parce que jamono boobu enseignant kii sax ouvrier yi. ñoo fa nekkoon ñu nekkoon ci usines yi di liggéey bëri woon lool nekkoon di liggéey ci ay conditions yu doy waar léegi nag bu ñu doon dem grève euh, patron bi da doon couper salaire donc euh, gars yi ci la ñuy def les caisses solidaire pour mën a période bu ñu demee grève rek ñu jël ci caisse boobu di leen xaw a jàppale ñu mën a tenir tuuti ci ci période bu ñu nekk noonu bu ñu leen fayul noonu alors donc ñoom tam ñuy nekk di xeex seen ak ak yelleef en tant que ouvrier. ba ci kanam ba vers la fin des années mille huit cent quatre vingt quatre ci la syndicat yi commencé taxaw ndànk-ndànk caisse de soli caisse de solidarité boobu daal di am doole ba finalement ñu tuddee ko après bourse des valeurs bourse des valeurs boobu moo dem di wéy di wéy ba euh, au début du vingtième siècle 1902 par exemple ci lañ fusionné avec plusieurs bourses de valeurs mu doon premier syndicat bi am en France par exemple mooy CGT hmm. donc euh, Confédération Générale des Travailleurs donc pour revenir euh, syndicat syndicat mooy ñi nga xam ne ñooy xeex ak ak yelleef képp kuy liggéey lii bépp liggéeykat donc euh, seen xeex yooyu ñu doon xeex moo tax ba fin dix-neuvième siècle ak début vingtième siècle ñu am ay ak yu bëri tey boo gisee ñi képp kuy travailleur sa liggéey par journée mu doon huit heures de temps de travail c'est parce que syndicat yooyu ñoo jug xeex pour que travailleurs yi nekk dans des bonnes conditions pour am huit heures de travail parce que bu njëkk ils travaillent plus que onze heures de temps donc ci seen xeex yooyu ci la ñu am acquis yu bëri ci loolu la ñu réduire seen heure de travail ba pare yokkal leen salaire augmentation de salaire ba pare jël leen en charge en cas d' bu ñu amee accident ci biir liggéey parce que c' était des mineurs ay mineurs la ñu woon ci suuf la doon sous-sol doon liggéey bu amoon accident donc dañ leen doon fay indemnité donc yooyu syndicats yi ñoo ko xeex ba travailleurs yi am ko après ñu jógee loolu ñu jox. le repos hebdomadaire du dimanche mm. ci lañ jëlee repos dimanche kenn du ko liggéey te dañ la kay fay mm-hmm. donc euh, ak yu bëri foofu lañ ko amee ba après début vingtième siècle ci la ñu commencé légiférer le travail mooy législation du travail après ci la ñu créé l' international du travail bi nga xam ne moo samp moo moo jox euh, yégle bépp pays ne ko foo toolu da ngay créer ministère du travail pour mun xeex ak ak yëleef xam. travailleurs ci yenn condition la ñuy liggéey pour mun a defaan seen intérêt ba pare ñuy xëy lépp lu ñuy revendiquer tamit ñu mun ko saytu bu baax. voilà foofu nag le syndicat yi juddoo fii nag Sénégal syndicat yi bi mu commencé yàgg na premier syndicat yi gënoon mag euh, xam nañ ko ay ñoom CNTS ak ñoom UDT UDN ak yooyu ñoo fa nekkoon ba enseignants yi tamit à leur niveau ñoom tamit ñu am seen i propre syndicat donc ci la SAEMS tamit juddu ci anam yooyu. ba nekk aujourd'hui syndicat bi gën a mag ci enseignants yi moyen secondaire. jërëjëf yan jafe-jafe la jàngalekat yeeg élèves yi am jamono yi. Euh, jafe-jafe yi bëri na lool nag buñ koy xayma dañ koy xam ci ñetti pàcc d'abord pour élèves yi élèves yi tey am nañu problème yu bëri ndaxte condition yi ñuy liggéey dafa xaw a yi ñu jàngee dafa xaw a da ngay dem ci classe yoo xam ne ay élèves yu plus de soixante élèves wala am ni école yoo xam ne sax ay cent élèves ñu bokk ci classe donc bu ñuy jàng ay trois lañ toog ay quatre quelque fois am na ñoo xam ne sax ci suuf dañuy lal pour jàng xam nga foofu jàngale bi du xaw a demee ni nga ko bëggee objectif doo ko mun atteindre et en plus bu ñu xoolee jamono bi léegi élèves yi li leen seen cent d'intérêt dafa xaw a différent ñi ngi euh, lépp lu ñuy jànkonteel ci mbedd mi dañ bëgg di ko appliquer si biir école bi mm-hmm. alors école dafa am nu muy doxee donc euh, euh, yenn influence yi tamit yi ñuy vivre ci yoon bi balaa ñuy egg seen école jugee kër ga ba egg seen école et en même temps dañu gis ni léegi jamono bi xale yi amuñu tuuti amuñu naka tuddati euh, xamuñu sens importance bu ñuy bi leen yóbbu école da nga gis koo xam ne day xëy dem école rek buñ ko nee lan moo la fi indi dem ah man dama ñëw jàng si mais jàng si amul benn ambition amul objectif xamul sax lan la bëgg a doon ëllëg xam loolu jamono bu njëkk ba. ku nekk booy dem école da nga ne man lii laa bëgg doon ëllëg mais léegi dañuy ñëw dafa mel ni dañuy dem rek ah, ñu yóbbu leen école rek ñu dem parce que seen morom yaa ngi dem sans compter tamit yeneen euh, yeneen problème yi ñuy jànkonteel mooy parents yi tamit dañ leen fula dañuy xëy rek ne leen dem nañ jàngi rek ñu dem donc foofu tamit ay problème lañ fay jànkonteel yoo xam ne euh, ñoom élèves yi di tax na ba ñu bëri seen jàng dafay sooke est-ce que seen moyens yi ñu am disponible na pour mun a jàng jàng normalement ça pose problème tamit beneen pàcc bi mooy enseignant bi en tant que tel enseignant bi est enseignant bi mi ngi jàngale normalement yenn condition lañ ko teg pour mu jàng aujourd'hui bu ñu ko xoolee bu baax da ngay gis comme ni nga ko waxee rek effectif pléthorique mooy classes yi dañoo bëri pour enseignant mun a atteindre objectif am day métti loolu dafa jafe lool. boo ko joxee cent élèves mu buur a surveiller cent élèves yëpp pour xool seen progression yëpp dafay métti. muy ci élémentaire bi comme ci moyen secondaire bi moo tax ba yenn saa yi résultat bi taux de réussite yi day en plus euh, moyens yi tamit ñu mettre en notre disposition dafa dafa ndaw lool lool lool ba nga xam ne joxuñu cër éducation on dirait léegi ci beneen troisième partie mooy l'école en général ak l'administration mm-hmm. tey bi ñu xoolee gis nga depuis daaw euh, ñi fi nekkoon dañu créé euh, génnewoon benn décret boo xam ne dafa wàññi inscription yi inscription yooyu mu wàññi nag dafa dem ba sooke fonctionnement école yi ndaxte budget yooyu lañ doon jël pour mun a régler yenn problème yi ci biir école bi ak budget de fonctionnement ak euh, euh, li ñu war a ji et intrant war a jënd yëpp finalement mënatuñ ko. di nga gis école boo xam ne dafa doon am budget de fonctionnement de dix-huit millions par exemple lycée yi mais finalement aujourd'hui ñu ngi retrouver avec huit millions wala cinq moins de cinq dix millions en tout cas am dix millions nga war a fonctionner pendant toute une année ak ñaata élèves près de huit dafay métti donc euh, yooyu la ñu jànkonteel en général sans compter infrastructure yi ñu bëri seen école yi commencé na daanu ñi mooy nekkul en en place ñeneen ñi ci ay abri provisoire la ñuy jàng boo xam ne ci sàkket lay jàngee kooku nan la enseignement yi di duggee mu mm-hmm. loolu dafay am problème puis nii Dakar même sax boo gisee ce qui est loo xam ne ñu bëri duñ ko gëm am na fi ay abri provisoire yoo xam ne man ci boppam en tant que enseignant en tant que euh, président gis naa ko ay abri provisoire ay sàkket la ñu jël donc muré ko pour élève di ci jàng ci biir xam nga condition de sécurité tamit àdduwul donc jàng jafe-jafe yooyu en général la ñu la ñu jànkonteel en tant que membre de de l' école. te yan coppite la enseignant yi di xaar si jàng beeg jàngale bi. waaw liñ ci xaar bëri na lool ndaxte ñun ñoo ko choisir comme métier. Mhm. ñu ngi ko choisir comme métier donc li ñu bëgg mooy atteindre suñu résultat bëgg nañu suñu pare jàngale ba pare génn classe bi par exemple ñu xam ni élèves yi ñu ngi suivre lépp li ñu doon def comme enseignement apprentissage ñu ngi ko doon suivre donc euh, li ñu xaar mooy ay réformes déjà ñu bëri bu njëkk dañ doon wax am na ay ministère bi ay réformes yu mu def dafa dem salle yi def ay études xool bu baax bu tuddee ko paquet le paquet ak yeneen ak yeneen euh, euh, politique yu ñu defoon pour jéem a xool nan la def ba améliorer qualité enseignement bi mais ci loolu dañ gis ni politique yooyu ñu def yëpp depuis combien d'années ba léegi mënu fexe ba réussir alors ñun li ñuy wax li ñuy proposer en tant que syndicat dañu ne carrément tout à tout récemment ci conseil interministériel suñu syndicat proposé na benn rapport def na benn rapport bu proposé ko le ministre pour ñu xool nu ñuy jëlee en charge examen yi yëpp muy CFE BFM ak BAC et en même temps fonctionnement fonctionnement école yi nan lañ koy defee donc suñu syndicat def na proposition ne il faut que ñu def ay réformes en profondeur réforme en profondeur mooy dañuy jël ñi nga xam ne ñoo ne clé en main ñu boole leen ci réflexion bu amee du ñu jël ñoo xam ne da ñu ngi ci bureau yi ñu wax leen ñu dem toog réfléchir ki nga xam ne mooy clé en main moo xam réalité li muy dund moom mun a wax yan problème lay jànkonteel donc loolu dina permettre euh, ministre bi ak ñeneen ak ñi muy liggéeyal collaborateurs yi ñu mun ci ñu mun sukkandiku pour mun changer n'est-ce pas yenn données yi pour que école mun a am yenn yu baax. deuxième chose mooy ay taux de réussite examen yi dañ gis ni ci ñetti at yi mujjee taux de réussite bi dafa commencé di wàññeeku taux de réussite boobu du suñu bu échec bu wàcceekoo ko du suñu ndam dañu ne ñun en tant que enseignant am nañ ci part de responsabilité comme état bi am na nañ ci part de responsabilité donc ñun li ñu war a def mooy ñun dem di continuer dem jàngiwaat di sàkku xam-xam def formation pour mun a gën a atteindre suñu objectif mais ci kaw loolu enseignant bu ñu demandé pour dem formation en général dañuy bloqué parce que dañ su ñëpp demee en formation kan mooy des ci classe donc te enseignant tamit dafa war a di méngoo euh, jamono li muy def buy jàng xale yi li ñu ko sekkal léegi dañoo muus dañoo am xel. gis ngeen xarala yu bees ñu ngi koy utiliser boo leen posé question yi ñoom bu ñu demee seen kër war nañ ko mun a utiliser euh, TIC les TIC. technologie de l' information et la communication pour am ay complément d' information li ñu am ci cours bi mais bon li ñu gis mooy li ñu utiliser ko ñoom plutôt dañuy dem. di à d'autres fins di WhatsApp di Snap ak yooyu te alors que mënuñ ko utiliser pour renforcer seen connaissance deuxième chose mooy euh, ministère bi ñu ko sekkal tamit dañu ne budget Sénégal presque 40 pour cent éducation la ko jag lañ ko jagleel mais 40 pour cent yooyu est-ce que mi ngi feeñ ci xale yi ñuy jàngal est-ce que mi ngi feeñ ci enseignants yi di jàngale tamit loolu il faut ñu saytuwaat ko bu baax moo tax ñun dañu proposer ay réformes yoo xam ne carrément en profondeur pour képp ku ñëw ci éducation bi ne éducation Sénégal mu ngi avancé mi ngi jëm kanam. syndicat bi nag nan la war a doxalee pour défendre jàng beeg jàngale bi. waaw xam nga ñun euh, comme ni mu ko waxee rek euh, jàngale mooy suñu métier. dañoo jug pour jàngale pour euh, sàkk xam-xam xale yi ñu dénk ñun tamit dañuy sàkk xam-xam donc pour défendre intérêt yi dañuy wàcc à la base gis nga syndicats yi très souvent dañuy wàcc à la base dem xool lan la enseignants yi di jànkonteel comme jafe ak élèves yi tamit. nekkuñu fi seulement pour enseignants yi mais élèves tamit pour que résultats yi ñuy xaar ci ñun ñu mun ko am donc ci loolu dañu défendre dañu demander woon à ce que le ministre euh, def ce qu'on a ñu li ñuy wax ay passerelles professionnelles boo defee benn diiru jàng euh, ci jàngale ci benn classe ci benn niveau nga def examen pour dem beneen kii bi ci gën a bi gën a kawe par exemple boo nekkoon euh, enseignant élémentaire plutôt moyen secondaire collège nga dem sixième ba troisième boo defee plus de cinq ans d' nga def examen pour mun a euh, dem jàngale lycée mais passerelle professionnel boobu li ñu ci gis mooy depuis plus de trois ans pratiquement ñi ñu ciy jël bëriwul déjà instauré nañ ko mais ñi ñu ciy jël bëriwul déjà en plus de cela euh, gis ngeen depuis 2014 dañoo signé woon ay accord ak gouvernement mais boobu ba léegi li ñu ci gis mooy gouvernement euh, respecté wul accord yu bëri lenn rek la ci am mooy aspect financier rek la ci xaw réussir mais li si des yëpp euh, yeneen point yi nga xam ne moom la ci ci accords yi yu bëri réew kii ko donc moo taxoon ba après 2022 bi ñuy defee augmentation de salaire yi enseignants yi delluwaat di grève ñu bëri comprendre ñu dañu ne enseignants dañu bëgg xaalis li leen yokk rek doy na mhm. mais du woon loolu yenn aspect pédagogique ak euh, infrastructure yooyu yëpp dafa bokkoon ci ci ci plan de revendication point de revendication mais soxew ñu ko donc ci la euh, enseignants yi delluwaat grève demander à ce que ñu le comité de suivi bi ñu mettroon en place ñu dal di réunion pour égaler xool accords yi fu mu toll fu muy avancer chaque fois boobu ba léegi tappe nañ sur la table wax nañ ba sonn mais après comme il y changement de ministre donc ci la affaire yi xaw a traîner mais ñu ngi saluer bu baax la démarche du nouveau ministre bi nga xam ne bi mu egsee dafa woo tous les syndicats njëkk na woo waa G7 d'abord ñu koy saluer bu baax après dégg naa ci semaine bi tamit woo na ñeneen syndicats yi nga xam ne ils sont pas si représentatifs que ça donc loolu li mu ci jublu mooy associer ñëpp mais buy associer ñëpp tamit na doon loo xam ne lu concret la ak pas loo xam ne ci théorie rek lay nekk donc loolu la ñuy xaar ci gouvernement bi tamit mu mooy ndiyee coppite. d'accord léegi bëgg naa xam système éducatif bi fu mu toll nii lan moo si sa xalaat. Ah, système éducatif donc xaw na war na aujourd'hui ak ñu toll fi jamono toll. mooy ñi ngi ci mondialisation ñi ngi ci globalisation élève bu Sénégal war na mun a comparer boppam ak élève boo xam ne mi ngi France wala mi ngi États-Unis ndaxte buñ koy tàggat dañ koy tàggat ci loo xam ne daf koy jëmal kanam dañ war a def ba nga xam ne élève bi su génnee mu taxaw jàkkaarloog beneen moromam élève bu nekk ci beneen pays du sëgg day siggi xool. parce que am na loo xam ne lu ñu def ci bopp bi ba nga xam ne dina il est il est fier d' être sénégalais parce que dana euh, système éducatif sénégalais bi avance na def na lii ci man mu dëgg léegi nag euh, beneen kii bi mooy réforme yi may wax les réformes là il faut que ñu ñu ñu kii ko mooy ñu commencer par diminuer wàññi quantum horaire bi mm-hmm. déjà xoola xale bi nga xam ne dafa yeew ñi nekk euh, préscolaire trois ans lay def mu soog ñëw élémentaire élémentaire mu def six ans. après bu jugee foofu mu am entrée en sixième mu dem collège mu def tur quatre ans dem lycée def trois ans soo ko def bac loolu diir boobu war nañ ko mun a wàññi mu wàññi ba nga xam ne tey élève bu defee benn nombre d'années par exemple quatre ans pour le moyen secondaire mun na dem def bac gis nga fan yi rek dégg naa ci inter sur internet benn élève boo xam ni dix ans la duggee université presque dix-sept ans am na doctorat su fekkee ñooñu mun nañ ko fii tamit war nañ ko mun diir bi enseignement yi ba pare tamit contenu yi ñuy jox xale yi contenu yi war na méngoog tey suñu jamono ak li nga xam ne ñun réalité yi ñuy dund fii nii Sénégal fii Tëngéej élève bu kii buy jàng te xamul histoire u Tëngéej mm-hmm. lay jëriñ ñu ñuy jàngal par exemple ay deuxième guerre mondiale ay Russie ak yooyu prof histoire géo la mais je dis il faut ñu xoolaat programme bi yéen contenu programme yi il faut que ñu xoolaat ko loo xam ne dina permettre élève bi mu outiller ko pour que bu génnee il est sûr que dina am liggéey donc école du loo xam ne dañ ko war a caaxaanee Lionel Jospin ancien premier ministre de France mu ngi doon wax mu ne l' école c' le berceau de la république donc ci école république mun a sukkandiku pour am pour développement te tey jamono bi ñu nekk nii Afrique dafa soxla avancer donc pour avancer il faut que ñu commencer par suñu ndaw ñi ñu tàngat leen. tàggat leen ci anam yu leer ak yu wóor nga xam ne bu ñu génnee rek dañu mun a affronter la vie dinañ mun a nekk dans le marché de l'emploi aussi. Euh, lan nga xalaat ni parents yi war nañ ko def ngir jógal njàng bi ak njàngale bi. waaw parents yi bu ñu fàtte ni ñoom ay acteurs lañu ci système éducatif bi parents yi ay acteurs lañu bu ñu toog rek di xaar ni am na problème entre sama doom ak sama ak enseignant rek ma daw suñu école pour lijjanti ko damay jox sama exemple man samay doom euh, école bi ñu nekk duma ma toog 15 jours te de mu xool yan condition lañ nekk loolu moo tax ma bokk ci bureau parents d'élèves yi euh, parents d'élèves tamit comme je di dafa war ñëw di nemmeeku ci el doomam. parce que bu mu xaar rek ba ñu ne bulletin bi génn na pour mu dem di jëli bulletin bi bu boobaa mbetteel lu bëri lay lay jur. da ngay ñëw gis ne sama doom day jàng chaque jour mais bu ñëwee bulletin bi jot fayal nañ seen doom ñu dem ay cours particulier mais au moment des résultats dañ gis seen doom jàngul ñu am lu leen bett mais bu boobu loolu noonu ñun enseignants yi ak effective bi ñu am mënuñu am regard ci élève kenn ku nekk boo amee classe boo am 60 élèves mënoo xam progression ku nekk da ngay ñëw dans le tas nga def li ngay def espérant que résultat yi di nga ko atteindre léegi résultat bu ñëwee nag donc parents yi ci la ñu kii moo tax ma ne école mooy deuxième foyer de vie sociale la famille mooy premier foyer de vie sociale li mu jàng école élève li mu jàng école bu demee këram parents yi war ne ko woo ne ko yow kaay loo jàng dem tey ak lan ak lan nga fa jëlee ndax di nga mun continuer et puis euh, mieux encore mu mun ko orienter tamit ci li muy décision yi muy jël parce que gis nañ élèves yoo xam ne bëggoon ne lan nga bëgg doon mu ne moom xaw ma mm-hmm. bu terminal xamul lan la bëgg doon donc loolu tamit parents yi am nañ ci rôle mm-hmm. moo tax ñu wax ne parents yi ay acteurs lañu ci système éducatif war nañu jouer seen rôle gis nañu association de parents d'élèves yi yenn association des parents d'élèves yu def ay jaloor yi vraiment di dem di xool di nemmeeku yenn école yi waaw mais loolu dafa ndaw lool par rapport ak li ñuy xaar ci ñoom en tout cas man enseignant kontaan naa trop damay kontaan trop quand ma gis benn parent d'élève ñëw fekk ma may def ko mu ne ma man la papa diw wala yaayu diw mhm. ma ne ah d'accord kon déjà man maa ngi bàyyi xel ci xale boobu naam maa ngi bàyyi xel ci ñëpp mais kooku dem ci gën a bàyyi ne ko ne yee eh, yow ses ñëw na fii donc mi ngi inquiété wu ci yow donc kooku dañ koy gën bàyyi xel bu baax te loolu la ñuy xaar ci parents d'élèves voilà. nan nga jàpp ni nguur gi mën na ko jàppale enseignants yi. waaw li mu war a njëkk def déjà mooy respecter kàddoom nguur continuité la am na régime bu bees ser mais ñoom li ñu njëkkoon def li ñu njëkkoon wax li nga xam ne depuis 2014 ba léegi ñu ngi koy xaatim ñu ngi fàttaliku ancien président dafa ne woon. pour la première fois ñu gis ni enseignants yi def nañu ay proposé nañu ay accords yu juste et réalisable donc ci kaw boobu léegi ñu ngi daw di daw ba gis ngeen 2022 mu am grève bu métti bu fi amoon après il y a eu juste euh, augmentation ak salaire ak yooyu mais li ñuy gën a xaar mooy euh, réforme yi nga xam ni moom la ñuy xaar ci système sur le plan pédagogique tàggat enseignants yi ñu tàggat leen bu baax comme sax ñu mun a euh, nekk productif ñu tàggat tamit tout le personnel et en même temps élèves yi tamit ñu jox leen ci ay xarala yu bees yi comme ça ñu mun a euh, gën a kii seen njàng mi ñu gën ko parfaire en tout cas lu gouvernement am tamit am na euh, comme ñu ne 40 pour cent budget bi la ñu def ci éducation mais dañ ko war a transformer en intrant positif pour que ñu mun a am les résultats ñu ni xaar ñëpp ñu ngi xaar résultat donc ñun li ñuy mun def mooy ñu tàngat enseignants yi gën a tàngaat élèves yi ak parents d'élèves yi tamit ñu ñaax la ñu bokk tamit ci ci ci système éducatif bi ñëpp bu ñu conjuguer effort ñun ñëpp war nañu mun a gouvernement bu ñëw indi moyens yi teg ko ci ñu mun a avancer pour que système éducatif sénégalais doon lu performant. d'accord éducation Sénégal lan moo koy xaar suba fan nga yaakaar lay jëmale sénégalais yi. ah am en tout cas en tant que enseignant booy jàngal aujourd'hui bu ñuy jàngalee dañuy ne. Euh, dañ leen tàngat non seulement ci li ñuy jàngale mooy discipline mhm. mais aussi dañ tàngat pour ñu am yenn comportement mhm. donc des valeurs civiques euh, citoyenneté ak patriotisme foofu lañ njëkk commencé parce que boo gisee yenn écoles yi dañuy def levée des couleurs le matin mhm. nekkul ni école boo jàng école rek da ngay tekki mais arme lu ñuy jox la pour nga mun a affronter l'école de demain donc école sénégalaise on a espoir am nañ ci yaakaar bu bëri bëri bëri voilà vraiment ñu ngi yaakaar ni tamit que les autorités neen def li ci war daal en tout cas. man na bëggoon naa xam le fekk ministre bi ni bulletin de note élèves yëpp dañ koy transférer parents d'élèves yi par message ban xalaat nga ci am. waaw ci jamono xarale yu bees yi lañ nekk. donc loolu lu ñu yombalal la parce que gis nañ établissement yu bëri bu ñu nee élèves yi di wax leen seen parents yi bulletin yi génn na ku jàngul doo woo sa parent ñu bëri bu ñu ci jàngulee du ñu woo seen parent donc ñi nga xam ne jàng nañ ñoom ñooy woo seen parents yi parents yi ak fierté ñu ñëw mais parents yi toog nañu at gis parent boo xam ne tegul sax tànk école mm-hmm. buñ ko ko waxee dañ ne ah man foog naa yaay par exemple papa ji ne foog naa yaayam jëli na ko yaayam ji ne aw ma jot donc loolu buñ ko defee day gën a yombalal kii déjà am na benn outil bu ñu utiliser mooy planète mm-hmm. planète déjà parents yi bu ñu leen formé ci bu ñu leen wane nan lay doxee mun nañu dugg xool à tout moment élève bi nan lay avancé mm-hmm. devoir yi ñaata la ci am ak yooyu yëpp mun nañ ko utiliser donc c' est une bonne chose te ci globalisation lañ nekk ak mondialisation c' est normal ñu def ko te mooy yombalal ñëpp gis naa tamit système boobu bac léegi euh, résultat yi par SMS lañ koy def. donc ñu ngi avancé ndànk am nañu chance Sénégal am na position bu baax a baax ci par rapport ak numérique donc suñ ko appliqué tamit ci serait une bonne chose lu baax la en tout cas lu ñuy jëmale kanam. est-ce que di digal xale yi pour ñu jàngale. jàngale moom ku koy def d'abord il faut nga am passion mhm. boo amulee passion moom vraiment doo atteindre ses objectifs deuxième chose gis ñoo xam ne euh, seen parents yi ñoo nekk an ay jàngalekat ñu gis seen parents ni ñuy doxalee ak yooyu ñu ne ñoom dañu bëgg nekk parent ñu nekk euh, enseignant ñoo xam ne dañoo gis den jàngale gis enseignant bii nii daf leen neex trop daf leen jàppale daf leen influencer bu baax moo tax ñu bëgg dem kii ñu dem nekk enseignant loolu ku ko def di ko ci génn mais su fekkee nag da nga ñëw enseignement parce que da nga bëgg xaalis amoo métier gis naa ni bu baax ñu bëri bi bi augmentation de salaire amee rek ñu bëri daw dem déposer pour nekk enseignant mais bu fekkee da ñëw pour wut xaalis c'est peine perdue ndaxte li ñu fay fekk moom vraiment yàlla rek ko am waaw ñun ñun ñun enseignant ñi ci durée waaw vraiment xam nañ li ci nekk mais passion bi moo ñu téye ba léegi waaw te ku bëgg jàngale daal ah nañ la wax daal nga armé de patience bu baax a baax a baax te góorgóorlu am fulla am fayda am patriotisme waaw. jërëjëf monsieur Sagna ñu ngi si jeexantal émission bi dama lay remercier di rafetlu sa teewaay tey si émission bi rafet na lool te am na solo lool si man tam maa ngi leen di remercier euh, kontaan ci lool ci yéen euh, suñu secrétaire général El Hadj Malick yu mu ngi nuyu. dam balaa mu ñëw dama ko wax ne maa ngi dem en émission. moom tamit fan yii yëpp mi ngi woon ci émission plateau télé yi di def ay émission donc euh, suñu amee opportunité ñu woo ñu wax ci jox suñu xalaat ci éducation tamit dañ ci sawar lool waaw di leen encourager yéen tamit di leen remercier bu baax voilà. jërëjëf maa ngi koy fay bu wér mbokk yi kon ñoo ko gisandoo ñu nekkoon suñu deuxième numéro émission Tok Tek ma la ñu jox dig daje si beneen numéro Tok Tek ak Aminata Seck ak beneen invité dimanche prochain même heure même fréquence bu leen fàtte abonné si suñu chaîne. Rio Plus jërëjëf